sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ngi ñaan jàmm ci quartier ba quartier yu ko wër di ñaan jàmm ci dëkk bi ak dëkk yu ko wër ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko yàlla nañu fekk déwén te jataay bii toogoon nañ ko daaw bu ñuy jeexal ñu ñaanoon fekke rek tabaarakallaahu fekke nañu ren ñu bari ci ñun yàlla nañu fekk déwén te ñu ko fekke woon daaw te wuute ko ren ña ca tukki yàlla na ñibbi si ci jàmm te indi dara ko fekke woon daaw te wuute ko ren ca feebar yàlla na borom bi saafara leen ba bañ dellu seeni bopp ñu ko fekk woon daaw te wuute ko ren ca dem kaso yàlla nañ ca génn waaye ñu ko fekkoon daaw te wóote ko ren ñi ci faatu yàlla na borom bi yërëm leen woyofal suuf seen kaw sunu magum daara ñooy ci sunu ndeyjoor moo sóob ab soq mu jël góor bëgg sóob ca sóob ba subbante ko noonu la ko wolof daan wax bu jigéen jëlee kuur moroom ja jël kuur bu debee bu yëkkatee kee dëbb bu ki yëkkatee kii dëbb subbante jàll ustaas si ñi nga xam ne yéen ci kon bi liggéey seen liggéey yi at ñi ma ci xamut kon bu ñu ma wooxee ne ma kaay def waxtaan wi dañ maa yéenu tiyaaba rek yàlla yàlla fay leen yéeneen ci tuyaaba rek la ndax lu ma fa rek hadiis la bu gaa yi jàng tabarakallah ñu wuy si nag suñu mbokk cheikh eh, nekk ci bitim réew nekk faak suñuy xarit yëg ne ñooña boole nañ seen bopp tudde seen bopp xaritu Alioune Sall mu dem dugg ca biir mu dem dugg ca biir ña nga ca bitim réew ñoom alaaji dooro sillaat ñañ ko àndal ñépp ñi leen nekkal fii ci senegaal bi muy ñëw ñoom ñu mën a ànd muy seen bi ngeen di gis muy Ali Imran TV soxna sa ko jiite ma ne toog madame Diop DG dana yàlla gën koo sàmm commercial muy Fat Ndiaye moom ngeen seen ne comme dem ci yow ne la aboneel ci seen bi waaw ma nga ne mu seen léegi la toog comme dem ne aboneel ci seen bi waaw mu nga kenn na ma ngi koy aboneel na ñëpp aboné tey aimé tey partagé di mooy doxal seen bi amagum na ñaar fukki junni abone ak ñaari junni ak juróom-ñetti junni macha allah deux cent vingt mille abonné yàlla na yokk dégg naa fi Adja Aïda Adja Aïda Fall France la jóge moom tam yëg ne Cheikh Diouf a koy woote te ñoo ko bokk nekk mu taal otoom ñëw seen naafit Cheikh Dieng ñu maag moom ñoo bokk nekk alimran bu bu bu maag dee moo may jox question yi may jéem a tontu oto bu rafet bee ngeen seen mooy suñu oto te mu verte ne taxaw war nu ginnaaw ñu bind ci alimran TV <laughs> yàlla na yàgg kon suñu Cheikh moon woo ci biiri bokkam ak ustaasam ak nijaayam ak waajuram ànd ñoom ñëpp di def bi waaw kii euh, alaaji njóge nee na moo yaayi Cheikh ñoo bokk ndey kon najaayam la yax na tàkk yàlla ñu yàlla dimbali ah kooku ko ñu doon fii léegi itam nga xam ne sunu ñaari dong yi ñoo ko jiite Mor Seck Koum Jogo Aline Diallo lu ko jiitee dëgg yàlla ni ñu ko defee rafet na sell na it te itam njàng mi set na wet ki ne moo jëli bu ñu fii ñëpp nañ wax nañ dëgg gone gaanu noonu di dem Dakar yàlla na àgg ak jàmm def yàlla lépp jàmm noo ngi nuyu kon waajur yi suñu seex yépp ku lim jum waaye képp koo xam ne xam na la nga xam ko mbaa nga xam ko ko xam fi nga nekk fekk nañ la fa ne la asalaamualeykum ñépp na dëkkandoo yi nga xam ne it wax dëgg yàlla ñoo ñëw wuy ko mu jaral jigéen ñi sol luñ niroole ba baax bi rafet ak seeni col yu vert def naa vert la seeni col yu vert yàlla ñu sol ca yére aljanna yu vert ya xudu aljanna yére yëpp ëpp dañoo vert waaw yàlla nañ ca sol ngeen sol ci xam naa moo tax sax action daara ji sol ci ñoom it vert nañ ñëpp suñ seex kon ñu ngi lay jaajëfal baax a baax eh, biig lañ fi ñëw fanaan si ndax bañ a naaje waaw biig lañ fi ñëw fanaan si ndax bañ a naaje xam naa duñ fanaanaal waaye mu mënoon daal <laughs> yal na yokk jàmm mbokk yi ñu ñëw indi benn tomb bu ñu xar ñetti xar tomb baa ngi tudd li war waajur yi ci doom yi li war doom yi ci waajur noonu la temps bi tudd su nu ko yëkkatee ci weeru koor nag dana yokk tuyaabay koor waaye dana yokk noti bloc note honorable noti bloc note mooy ki nga xam ne buy dem ci waxtaan day yóbbaale carnet boo waxee baat mu kornu kornumet ko walla mu karmat ko te mooy bind ko ci ruq al mustarshiduuna Serigne Moustapha daf leen koy wax kenn du ñëw ci waxtaan ak loxoy neen mu tax bu ñu waxtaanee ba noppi bu nee diw demal gàndi gaal nga def fa waxtaan wi ni mu ko doon defe la koo koy defe nga xam ne bu ne tabarkalla waa ji doon na te su fa àggee moom tam ne tabarkalla bu ne wallaay ndeysaan waa ji bu sa àggee moom tam daal ne wallaay ndeysaan kenn mësu koo gis waaye loolu nag jël not moo koy tax ndax kii dem ci waxtaan bu amee ndab lum def la muy la muy jël bokkut ak kotoog ba ñuy dem mu dem loolu daloon na sallallahu alayhi wa sallam ca moom ak silmax ga doon jàng si silmax gi di jàng si waaye yonent bi toog ak kilifa ndeke kilifa yi kilifa yi ñoom ñur ñu ndab luñ def waxtaan wi silmaxa gi moom yor na ndab aleyhi salaatu salaam bëgg tibbal ñu yorul ndab sunu borom ne ko tibbal ku yorul ndab munta nekk tibbalal ku yor ndab waaw moo tax ba mu bëggee tibbal ñële naan silmax gi may ma ma àggale sunu borom daal ne abasa wa an jaahu ne am na ku am na ku mer wax ko nag dangaa mer ndax joxaane suñu borom du joxoñ nit ne ko baaxoo yax am na ku baaxu mu ne am na ku mer ba wan ginnaaw ka doon jàng te mooy silmaxa gi nga xam ne yor na fu mu def li koy jàngal door ne ko nag wama yu diriika ndax xam nga ne kii nga bëgg a jàngal moom ki nga nar te jàngal yor na ndab te ñii ñëw ñoom yoruñu ndab te tibbal ko yorul ndab fii ne bañ ñu fa indi woon ab tax tax lañ ko tuddee defe naa ne wala ab yegg yegg di la ko duyloo potum ndaa fii ba suba ci ngoon du fees moo kuy moo kuy root sotti sendal ñoo yem doo feesal de kon waxtaan yu mel nii bu ngeen di ñëw da di indi ñetti ndab paan gu vert paan gu ruus ak paan gu orange mooy li ci feu rouge paan gu rouge gi soo déggee ñu wax ci mbooloo mi loo xam ne ah yaa ngi ko doon def muy lu ñuy tere nga dégg ko ci waxtaan wi loola nga jël ko rek def ci paan brouche ko xaar ba oto mbalit jaar fi nga jox ko ko mu yóbbu ko fa ñuy tóor mbalit mi oto mbalit mooy oto yu ca kaw naa ku ko def almaañ yóbbu la moom ni suñu oto mbalit yi xëy na gouvernement bees bi dana ko changé bàyyi leen collection yi ci mbedd yi bu ñu waxee loo xam ne yaa ngi ko doon def nga bëgg mu yokk nga jël paan gu vert gi def ko ci booy dem yóbbaale sa kër bu dee loo xam ne yaa ngi ci diggante ba bëgg def ak bëgg a bàyyi di si ki sàkk ak def yëf nga def ko ci paan gu orange yi booy bëgg a ñibbi sotti ko ci couvert gi yóbbu yàlla na yàlla boole dimbali mbokk yi daa am ku ñuy wax baay am ku ñuy wax doom am ku ñuy wax doom am ku ñuy wax baay eh, baay waajur wu góor la yaay bi waajur wu jigéen mu am nag ñoom ñaar ndax adduna lépp ay àq la adduna lépp ay droit la waaye ak i devoir nag droit ak devoir nit nit bi yàlla lay indi nit daf ko bind noo xam ne nit du xëy rek mën mënal boppam gis nga xar mi mënal boppam du demal yaayam marché xar mi judd rek mënal boppam du demal yaayam marché mukk du ko may soowit lu tax parce que daal jur mënal boppam nit nag yàlla def bëgg moom muy muy muy demal yaayam marché mbaa mu koy amal njariñ moo tax bu nit juddoo sunu borom téye tànk ya téye làmmiñ wa téye ay pexem ak kàttanam ñu koy defal lépp ba mu am ñaari at ñu doon ne ko te ngaa jéem a defal sa bopp yenn affaire yi bu demee cinq ñu ne ko ah, léegi kay fu noonu lay def di dem ba am quinze ans jàpp vingt ba baa muy am cinquante cinq ans day toll foo xam ne bi duutul defal boppam duut kenn du ko defalati allahu la si xalaqakum min daaf summa jaala min baadi daafin quwa summa jaala min baadi quwatin daafa mënaloo sa bopp ba mu yàgg mënal ba mu yàgg mënalatoo sa bopp ñun ñëpp ñun xam ngeen ustaas njóge mi gënoon na fee sawar ah waaw ah gënoon na fee sawar bi ñu koy door a xam bu njëkk nga xam ne buy làkk arab fii ñëpp duñ bëgg mu noppi ak ki nangam léegi ñu ñu naan ko jagalal micro bi <laughs> yàlla na ko yàlla yow ko wér lu am solo la yàlla mooy joxe daal rek mu yàgg rek mu di ko jël par ndànk yulu ji layla fi nahaari wa yulu ji nahaari fi layli dina nga par ndànk rek waajur woowu nag di mu góor ak wu jigéen li njëkk amel doom ji war a am te ñëwagut mooy tànnal koy waajur tànnal koy waajur surtout ki war a nekk yaayam ki nekk baay dem tànn yaay yaay ju sawar yaay ju gaaf doom yaay ju jome yaay ju yaatu yaay ju féex parce que lii may wax ci critères yi war a nekk ci yaay bu nekkee ci yaay bu amee doom ween la koy nàmpal danaa ci ñëw ci nàmpal bu dee yaay ju mel ni nogay ku ko yaakaar ku yaakaar mu nàmpal la ndax nga sa bopp bu dee yaay ju bëgg àdduna nogay nga xam ne fu mu solo ñoo xam ne day génn moom tam ku yaakaar mu uuf la ndax nga sa bopp te doom dafa soxla uufu uufu doom ku soxla uuf la kuñ xam kuñ xañ uuf rek xañ nañ la umuma xañ xañ la ubbuwa te yooyu kuñ ko xañ du baax école yu mag ya mag ya mag sax bu ñuy def jardin du ñu bàyyi xale bi rek yaayam ñu sànni ko fa dem jigéen su bootee su bootee dafa am benn battement bu xolam di def te du ko def fii ci ginnaaw la koy def ndax mu dëppoo xolob xale bi dëpp ginnaawam ci gannaaw yaayam americain yi ñu ngi tàmbali battement boobu nuñ koy enregistré ba bu xale ñëwatee ci këf ki ñu defar ko lu mel ni genn njoowaan teg ko ca battement ba nekkoon ca xolu yaayam di dellusi ci moom nun duñ def noonu da ngay ŋàbb sa doom ji dem ba jardin ba sànni ko fa bu amee sens bu amul sens jànq mbindaan mi moo koy yóbbu balaa àgg saaga ko tarankat saaga xët ko ñeenti xët waaw loolu ñuy jàngale xam nañ ko waaw ñoom baraxam ñuy yor jardin ñoom xam nañu loolu donc doom baay ji la koy tànnal yaay kero bi góor na yonent bi dama bëgga a tànnal sama doom yaay mu ne ko ah, man de gis naa góor ñoo xam ne ku rafet la ñuy tànn mu ne ko ah, mu ne gis naa góor ñoo xam ne ku am xaalis la ñuy naa góor ñoo xam ne ku bokk ci yax bu dëgër lañuy ñuy tànn ma gis góor ñoo xam ne ku am diina la tànn waa ji ne ko léegi ñeenti ñii man bu ma ci tànn mu ne ko fasfar bi zaati diin taribat yadaak waaw tànnal boroom diine sa loxo dana taq dara loolu nag ñun ustaas yi léeg-léeg duñ ko fiir nit ñi dañoo wax rek eh, sa ndax film yi daal moom tari ba dee dàkk léeg-léeg du leer la la la oustaz Taïb Socé netti li woon mu ne waa ji day jàngal waa ji li anna suurata wal juluusa lam yafuuta masala bu jëfe moom waxee ba noppi rek ne ko leer mu ne ko leerul bi mu wax bu ñëw ne ko li anna suurata ndax tasaar wa wal juloo sa ak jataay ba lam yafootaa rëcceguñu leer na mu ne ko léerut mu waxaat ko ba mu ba mu noppi nag ne ko du leer ndax nii ba la ko waxee képp lañ ma ko waxe du leer bi du leer sax mor bu nu demee Dakar nga wut benn laxdar yi machine bi ko doon tàppe dafa yokk ak waaw waaw ga la jël masalan joxaane machine bi doon tàppe dafa yokk ak waaw bu waaw gi dañu doo dégg masala bi moo tax mën na ko li àdduna soorata wal juluusa lam yafuuta leer na mun na ko leer mun na ko du leer ndax nii dong la ma ko waaj waxe wa ma ne ko du leer yàlla <laughs> na yàlla dimbali ginnaaw tànn ndey jooju ndey jooju gaaf ndey ba mel ni meer xànna gaaf ndey ba mel ni sayyidatuna Maryam hmm? gaaf doon ndey ba mel ni sunu mag ngeen di dégg ci réew xamsa la la ca tege mooy na ko tànnal aw tur aw tur gis nga fii li ëpp ci ñun mën nañoo tudde seen doom ku baax waaye dug tànn dug sàmm xam nga ki tuddee doomam sëriñ saalixu dem ba nit ñi naan ko saal saal ah bu dee ci tubaab baaxut bu dee ci wolof it moom saalixu la tudd mun a wax saalixu di wax saalix bopp am de ñañ tudde woon sëñ Moodu xabbaan Mbàkke mii nekkoon di xale yi duuti na wax xabbaan xabs lañ leen wax xabs xams kon nga sa doom ji baax waaye sàmmu tur bi ñañu tudde woon xaadim rasul ah shakartuhu isqasani bi xidmati lmahisani saa xidmatin fi laalami lahu wa fakka wala mi booy naan ko xës ah tuur yëpp nunu la xale def kon yow mi tudde sa doom te yëg ne ëllëg sunu borom dalay laaj tur wi fexeel ba tur woowu tur woo ko mën a tudde nga sàmm ko nga sàmm ko waaw xale yi tudde woon xawaa Eva lañ tudd léegi xale yi tudde woon Maymuna borom leen la tu xadar jële Maymuna al kubra wa suxra léegi menace lañ tudd waaw te kat loolu laay alxuraan da ko da koo tere wala tanaabasu bil alqaab bi'sa lismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub nag moo ci teg ku koy def te tuuboo ko suñu waram nee na nga dugg ci bàmmeel moo tee mu dugal hmm? kon dañ koy tànnal aw tur sàmmal ko tur wa bu ñu indee di ko aw tur li tax ñu bëgg koo sàmm mooy am xar la ñuy jëli xar moo mag moo xam ne moo mag xale bi te socialement socialement léeg xale bi walla ba papaay xale bi xar mi xaw ko raw ndax papaay xale bi une femme la am xar mi ñuy rendi nga trois femmes ñu rey borom trois femmes ngir bëggale ko doomi boroom une femme ah nañ ci jànge dara moo tax kon biñ ko biñ ko rendilee xar mi la tax ñu ko doon def jar ne sàmm te mooy tànn ci turu aw tur ne ilimaan yow mi nga xam ne imaam si si mi nga xam ne yaa ne ci koñ bi di jiite kaay yi nodd ci nodd bi liqaam ci bii wutale koo tur mbokki turoo nañ koo sàmm di hmm? euh, tey sama téléphone bi kii bu ma yónnee Ria Ria yónnee ma cent ma dem ca Ria ba di ko jëli fekk mu bind Alioune def ci NE te ma sama pièce Aliou léeg-léeg du ma ci jot xanaa ma woote mu soppi ko waaw loolu gaa yi xam nañ ci dara boo demee ci aéroport yi euh, billet beeg visa bi visa beeg euh, passeport bi bu amee yooyu tur nit ñi bu neex a ñu tuddee ma Alioune ñenn ñi sax naan Oustaz Sall ñenn ñi naan Sall ça ça dépend waaye Aliou. moo ne ci samay pièces Alioune bu nekk ca sama mandat coow am léegi nag mbokk yi bu nu fi jógee dañ soppat suñu tur yooyu ndax ku fi dem yomal xiyaam sa tur changé malaaka mi rappel jotu la nga am problème ah waaw ñuy rappel ba woo jenn waaye <laughs> moom muy xaar tur yu ko gaa yi di wooyee waaw waa ji day animé ci télé rajo bi tudd DJ DJ xuuf-xuuf léegi mu dem yomal xiyaam malaaka mi di ko woo pour ñu jox ko prix ma cadeau ma ki biyam ak barsa mu dem aljanna malaaka mi di ko woo ci turam muy xaar tur bi ñu ko doon wooyee ci rajo bi DJ xuuf-xuuf ma bi malaaka wootee ba ñëpp dem nag malaaka mi dese ci dossier bi turuwaa ji mu ñëw ne ko waaw déggoo si mu ne ko noonu noo tudd mu ne ko xuuf xuuf gis nga fullay yàlla du wax waa ji changé ko te jox ko déggoo déedéet moo tax bi sa lismul fusuuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaa'ika humu zaalimuun suñu borom ne nag ku fi woowaat ak nit aw tur wu turam te tuuboo ko buñ lay denc ma lay duma buñ lay denc rek ma lay duma fi ne Alioune Diallo moom sens Alisco lañ koy wooye Alisco wala nga naan ko liin booy liin lànk leen de lànk leen de damaa mas a dem ci dëkk fekk fa ña ay cheikh cheikh benn bi ñu tudde ko munira benn bi nazira muy tur tur di bi bu ñu def taa pour mu jigéen léegi waa dëkk naan ko naan kenn ka muni naan kenn ka nazi nazi muni nazira ñu naan nazi munira ñu naan muni ma dal ci kër ga nag ba mu jégg mun ñu wooyal ko ma wooyal ne leen gis ne kenn ki gis nga yow yonent bi la tuddee yow mu niir mooy bu góor mu niir ra mooy sa tur daal ne kenn ki yow nazira nga tudd bu leen ko kenn wooyeeti wax ca ñoom ba wax ja sori mbokk yi kañ njëkk ñëw ci kër gi ne mu xale yi dañoo jooy ba añuñ xale yi dañoo jooy ba añuñ ñaar seex yi lu tax parce que Oustaz Sall nee na tudd ñu mu ni mu niira lañ tudd waaye bu ñu demee suñu kër yi dañuy def noonu mbokk yi wépp tur wu nu yàqoon nañ ko jubbanti balaa jubbanti ko di weesu ndax su mbar ne waman lam yatub ku tuubul ba jubbanti fa ulaay ko ñooñu te dégg waxtaan wi humu zaalimoon ñooy tooñkat yi kon nag jël leen ko def ko ci panne verte yóbbu ko ca kër ya changé tur yañ fa changé fottasu leen ok dégg nga bu ñu bu ñu ko tuddee tur bi sàmmal koo turam pourtant suñ sant yi changé wuñ ko xanaa tubaab bi koy tubaab bi su nga xam ne mu xamu ko rek naan Dieng te war a wax Dieng xanaa loolu waaye ñun ci suñu biir moom sunu sunu kii kii na ñëwoon woon sekk sekk ba léegi ñu woon jàllo ba léegi junj naa sànq nàmpal junj naa sànq nàmpal mooy secret bi yàlla dëxëñ nit war cee jaar jël jikkoy ndeyam doom day jël deretu baay ak meenum yaay diw day jël deretu bàyyi ak meenum yaay wa jaal na wala bokk euh, wa jaal naakum shuuban wa li taarafu ku jël dereti bàyyi ak meenum yaay suñu bar ne na ku la gis xam la <laughs> inaa xalaqnaakum min dakar bàyyi ngoog wa unsa yaaye ngoog wa jaalnaakum shuuban shuuban wa xabaa'il shaabu ki la ci boole mooy yaay xabila ki la ci boole mooy baay li taarafu ku jël sa dereeti baay jël sa meenum yaay ku la gis xam la li taarafu waaw fi ne bëy yi bëy woo seen xam ne bëy la Cheikh Diouf seen koñ xoolal bëy ya bëy woo seen danga xam ne lii bëy la xar nag mbaam nag fas nag nit ngay xool moom mu bëgg a niru leneen lu dul nit ndax dafa doyalul ci dara ci baay ak meenum yaay lu de waaye ku doyal ci mee dereti baay ak meenum yaay ku la gis xam ne li taaruf ah oustaz waaw li taaruf li taaruf inna akramakum indallahi ku ëpp jom gën ku ëpp jom gën ku ëpp jom gën parce que nit gënante ca ndey gënante ca baay gënante ca meen ah, gënante ci deret bu loola amee am ñu mal départ ne kon doom na way ba mu ñuy gën du bari waaye bu jëm amee nag inna akramakum indallahi atqakum nàmpal nag moo koy wax ba tax ñu bëgg bu jigéen amee doom mu jël weenam raxas ba mu set jox doom ji ne ko bismillah keroog la koy tàmbalee keroog la koy tàmbalee tabax binyatul walad keroog lañ koy tàmbalee tabax moo tax jigéen saa bu yëngee yëgee ne ëmb na rek ndeysaan ëmb bi jox ndigal ween yi ne leen waaj leen fii ak neuf mois naa leen indil genn gan teraangaam añ ak reeram ak ndékkeem yéen laa ko sant yéen ñaari ween yi nga gis ween yi commencé ñoq ji génn ndeysaan tax boo amee doom joxoo ko ko tooñ nga ko di am de <coughs> ah? te soow moomu soow yii ci bitik yi mënu koo remplacer mukk ndax soow yi ci bitik yi jógewul ci nit am na ci yooyu ci jur gi la jóge am na ci yooyu fañ jóge xamuñu ko du gerte buñ dëbb la pete en tout cas dinaa gis léeg-léeg ñu bind meew mi wóor ma kon am na mu wóorut meew mi wóor ma ne kon ku seet da nga gis meew mu wóorut mi wóorut nag moom la ustaas yi bu ñu demee di tudd xale lekk ca laax ya yendoo nelaw mais yow moom wóoru laaj ko léeg-léeg nga dem am tudd ñu jox la laax moo tax man su ma demee fii ne bu ñu joxe am na nature yi léeg-léeg laaxu nature yooyu gerte geeg kii man boobu lay jël waaye soow yii wóorut en tout cas mën naa jur nelaw yi dul jeex paa yi paa boo gis ma nga naan sama tànk yi maire yaa ngi naan sama tànk yi yàlla xam na ko de ñenn ñaa ngay xasalu ñenn ñaa ngay wokkatu ñenn ñaa ngay fàtte ñenn ñaa ngay fàtt c'est des soow ah des soow la ah moom la moor jaayam soow lu ci ni ñëwu léeg-léeg ma seetaan bi publicité publicité waa ji mën naa publicité ba déwén li muy publicité du siiw am na benn opérateur su ma ñu doon tooñ dama ko tudd fii yéen ñëpp ngeen wax nga dëgg fi ne boo boo laajee taximan yi ci conférence xam nañ ban restaurant moo fi gën a neex ci yàlla taxi yëpp fa la ñu bu koor gi jeexee moo tax boo sii na taxi gaar ñoom ñëpp joxaat demal añ y a ceeb waaw kon soow mi su ñëwee ci ween wi bu ko yaay ji joxut boromam tooñ na ko gàddu na ak xam moo tax danga koy jox soow mi ba 4 mois ba 4 mois bul ko jox ndox wax ma laaj lekk soow rek ba 4 mois su 4 mois yi jeexee nag bu la neexee soow ma nga rax ca dara lu gone mën a wanaasu waaw darax ca dara te bul teel a indi soowum bëy mbaa soowum xar ah bu leen ma nax doom ji meewam nag la namp ba géex bu naan ñu lit daane ndax am xel mu gàttite ndax mbokki nampal moo tax bu Fat Njaay Sekk amee doom jox ko Fat Jàllo mu nàmpal ko te boobu mu ngi toll ci ñaari atam ñu ne ko doomam araam na la ndax sekkere nàmp waaw nàmp ñaari at baax na su atee nàngam baax na ku nekkul ci sëy nag maanaam tàqali ko ak papaay bébé yow ñaari at nga war a nàmpal moor mhm. bu fekkee moom papaay bébé ñoo bokk nekk nag at mi lu ca tegi mën naa fer ñetti weer juróom benn weer yaa xam mën ngaa feral waaye su fekkee dafa dañ koo wàcc hmm, nekkatul ak papaay bébé wal waalidaatu jigéen ñooñu nga xam ne dañ leen a wàcc ñoom yurdi ana awlaadahunna xawlayni kaamilayni moo tax ba dem ca siixa ba ba laajee ñoom barxaam lu jiitu yàllay wax lii ci fasal doon wax nàmpal ñaari at bu fekk yaa ngi ci kër gi nag moom ñaari at noonu nàmpal gi am solo gi tax na bu ndaw si tasee sunu borom ne la dee ko fay muy nàmpal ngeen waxaale ah dese na xale bi dese na quatre mois pour ñaari at yu mat léegi nag da may fay trois cent mille par mois nga ni i bu ngeen waxaale ji boobu lan suñu borom nee na moom yaay ji bàyyi ko te wut jeneen yaay ju nàmpal te ngeen juboo ci prix allahu akbar lépp kat lim tax mooy li ñu bëgg doom ji ginnaaw mi ci ñaari at féregut bu yaayam lànkeen du ko nàmpal ñu wut jigéen ju ko nàmpal ñu fay ko almasabul maaliki dem nañ ba wax ne su ko yaay ji nangut a nàmpal nañ ko forcer mu nàmpal ko ñu ne kañ mu ne su fekkee ne xale bi nanguwul jenn jenn yaay jenn jigéen kon yaayam la ñuy forcer neex naqare daf koy nàmpal mais su nangoo jeneen jigéen nag dañ koy jox jigéen joojee te du ko fay moo tax keroog ba Moussa ne jeef pale Firawna te féragut bébé bu juddu démb daf ne du nàmp wenn weer moom Moussa weer wuñ ko jox mu lànk waaye weer wuñ jox Moussa Moussa lànk ñoom oustaz Ndiouga sax bu ñuy feral gone lànk na ween ya lañuy ñuy bindal ki ñuy feral waaw lànk na ween ya waaleykum salaam wa rahmatulah wa xaram naa alayhi almaradi waaw Moussa lànk na ween ya lañuy ñuy bindal gone gi ñuy feral ndax moom it mu lànk ween yi <laughs> tax suñ mag ñi ñooy yeewu kaar kaar boo juddoo ñu gat ndolal laaya booy fer ñu ñu ñu gat ndolal laaya bu la mayee ci jàkk ja ñu indi laaya boo faatu ba ñuy denc ñu indi laaya yow koor na bëgg laaya nga doon hmm? nampal àqu gone gi la gu ko yaayam ameel loo ñàkk-ñàkk jot nay nàmpal sunu boroom sax bu jigéen di nàmpal bég gi bég ci nàmpal gi tax na da koy récompenser doo nef jigéen ji nàmpal dëggantaan bu soow mi jeexee takk liquide bii tax a gis règle du judd bu soow mi jeexul nag xanaa cuux cuux téel ma ma dem te ñëw kon soow mi du jeex bu sew mi jeexut liquide bii tax a gis règle day judd ngay nàmpal di gis règle boo jëlee ay daal di ëmb <laughs> waaw waaye su fekkoon da ngay nàmp ba nit ñi nàmpal dëggantaan gone yi dañuy magante ñaari moo tax sax ñuy def planning familial jéemoon caa jaar ndax daan ca am dara am déet waaw wax ne comme comme sunu borom nee na nàmpal ñaari at bëgg koo obligé jigéen ñi moor ndax euh, du ëmb te loolu jotewuñu dara jotewuñu dara waaye léeg-léeg ñu wax ko ca rajo rajo ba nag waaw qaala allahu taala fi surati albaqara wal walida xama albaqara ah, xama nisaay wal na yurdi'na awlaadahunna kon na jigéen nàmpal ñaari at lu tax pour du ñu nef lu tax du ñu nef dañoo bëggul xale yu bari muy planning familial lu tax ñun bëreetuñu gone ndeysaan bëreetuñu ko yàlla ñuy wax ci alquran ci joxe ay ci weeru koor joxaan yàlla day jox day jàngale koor ba mu yàgg rek mu ne dee leen joxe ay tere woon naa ko nag koor bu mu joxe ay la njëkkoon wax bu fi kenn joxe ay vingt-neuf jours mbaa trente ba mu ne bàyyi naa ko léegi dee leen joxe ay fal aana léegi nag baashiruhunna waaye lim ci teg mooy wabtaxu maa kataba laahu lakum dee leen ngénti nag <laughs> yaa njaay waaw di joxe ay tey ngénte nag waaye di joxe ay te loolu ngénte loolu yàlla bëggewu ko noonu la wax dëgg yàlla ko fi amoon ab taxi wala cak cag muy daw rekk di lekk te du versé léegi tey nga dàq joxe ay te doom ngénte noonu la mel il faut ngénte ah ngeen baal ko ndax xaw ma mbuur waaye Dakar moom ngénteel paa xewi na fa ngénteel paa tey mu ne la ah xaw ma nag nguur Dakar boobu teel lay saay xaw ma nag mu ko def maa ngi gëstu ba léegi ah maa ngi gëstu rek damaa xamul nag ni ñuy toggee ceeb la wala yi ñuy togg la wala yi koy safa yaa quelque chose de joxe ne non yaa quelque chose yaa quelque ah kon xale yaa ko amel nàmpal ko ba mu suur gis nga xam nga man damay seetaan damay seetaan football lu bari ndax man je suis un grand footballeur na nga may gis ni ah way mu yël waaw ba ba may kii la woon bu doon jamono yi ba ma bootaloon ak siis non kon nga ne kii kii moom siis laa daan boot waaye li ma bëgg a mooy bu équipe yi ñëwee coupe du monde am nañu sant seen joueurs yooyu nu fu ñu fu ñu jóge Danemark gis nga dan dan yi mboolem ñuy ñëw coupe du monde ñoo ci gën a dëgër ah ci ñu ci sut lañ bokk ñu ci gën a feri lañ bokk parce que jigéeni Danemark quatre-vingt-seize pour cent yi seen weer la ñu nàmpale ah xam ngeen Togo Togo ñooy ñi gën a faible ci nàmpal daanaka douze pour cent mutuñu ko moo tax bu ñu demee coupe du monde booy fël muy daal léegi-léegi ñu dem duñu dugal bi ñu ñibbi si léegi-léegi duñu ma koy wax ni xool da ngeen c'est vrai ah. Ah, léegi nag bu leen fekkee ci loolu dañuy néew doole mhm. ngeen baal ma bi lu fi gënee di teel a ci soxna jigéen ñi ñu di leen teel a denc bokkut ak léegi léegi sànq la wax benn xale bu góor takk nga jabar mu ne ma non ñaata at nga am mu ne vingt-huit te dese na trois muy trente mu door a takk ma ne ko baax na donc nampal c'est très important nañ ko delloo si waat te léeg-léeg sax ngeen dégg ci télé rajo yi léegi ñuy tàmbali di sulliwaat nampal parce que soow mu njëkk vaccin la bu tubaab bi mënta liggéey moor soow mu njëkk ci weeru jigéen xam nga noonu am na fi sax peut-être ñu jaar ci daara li ñu tuddee néeg néeg mooy bu xar mi amee doom dañuy njëkkalanteeg doom ji soow moomu bala koo xarmee nam ñun ñu ratt ko jël soow moomu togg ko def ci xorom néeg la tuddoon dafa baax ci góor te sunu borom bébé xar la ko defaloon noonu dem comme ñun ñoo ko xar gën a xam doom ji ñu dem ratt ko ñun tomb nekk la tudd def naa la tudd nekk la tuddoon ak a neex nag tekka nekk mooy bi jóge ci soow mi tekk mooy bi ñuy ratt ratt bu njëkk bi Très bien. leer na nañ alhamdulilah donc nit tam soowam mu njëkk moomu ci doom vaccin boobu tubaab mënu ko defar moo tax bu ko nàmpee ñàkk koog pikiroog lépp ci bokk yam feebar yooyu ñu tudde umu sibiyaan yonent bi nee umu sibyaan du du du ko yeb mooy feebar yi nga xam ne naan polio nangam nangam nangam kayit yooyu soow mu njëkk moomu moo ko daan wutu mbokk yi jigéen ju yaa amee sa doom jox ko soow moomu bi jigéen daan nàmpal ak soow nag Alioune Diallo doom day nàmpal ba mu yàgg rek mu ne nii yaayam fixé ko laajal jigéen yi sa doom dafa daan xool ba nga faxas bëri mbaa lii jàmm la ndeke jàmm la daf lay daf lay xool daf lay jàng day dafay dafay note liñ ko lebal xale bi daf lay xool ba nga tiit waaw mais bi loolu amatul léegi da ngay xóoyal ci soow yi rek jox ko mu tax su màggee ba am xale bu jigéen bu mu nopp bu fekkee xale bi moo dàq defar yaayam soow kor la ñàkk yaay man yaay kii lay takk doo ko fi takke mu ne takk dëgg parce que mbirum soow la te joxu ko soow kii ko jox soow kii la dàq soow yow da bàyyi dem ca ka dàq soow rek bu jàpp mbirum soow la ah <laughs> la dëgg la léegi-léegi it morset jigéen ji am doom au lieu nga nàmpal ko dem nga xëy na da ngay defari sa bopp tey la ngeen tëlikat au lieu nga nàmpal ko dem nga ne ko fu ko dem defari sa bopp nga dem salon ba ñu yàqate la rëddaat sa bët yi wataat sa yéen yi musóoraat la defar sa tuñ yi maasa la sa lex yi nga ñëw rek ñu sa doom ji mi ngi jooy ba nga fi jógee ba léegi nga jël rek doom ji gën a yóbbu lu tax parce que jigéen ji bëgg koo nàmpal du ki ko doon nàmpal semaine bi yëpp xamewu ko naan daa weex daa weex bébé ne weexuma de dama amul maman <laughs> wala sama maman ma réer dëgg la dëgg la solo de ah. soo nàmpalee ba mu fer tarbiya moo ca tege mooy yar ko nag waajal nga ko nàmpal nga ba mu fer léegi nag tarbiya ci des yaa ko amel doon kuy tarbiya du saaga kuy tarbiya du saaga du dóor du yuuxu bul saaga bul dóor bul yuuxu alayhi salaatu salaam nee jëpp jëpp waaj ju am ñetti doom yu jigéen yar leen ba dugal leen néegu sëy te mosoo cee dóor kenn loo defoon yàlla baal na la ko kon buñ dóor waaw ah, yaa way te nit ñi niñ gaawe ci dóor léegi dóor rekk joo xam ne léeg nit ñëw kër ga ni ma sama doom ji day sawlal ba léegi mag la te bàyyi bu ko question bi ma lañ njëkk laaj ndax mas nga ko ci dóor boo ne waaw boo ko doon ñaanal baqara ba naasiit day continuer saware boo ne musuma ko cee dóor kay su boobaa boo bindee waxiila baynahum wa bayna maa yastahuuna nangam nangam nangam noonu eh, dama koy codé dama koy codé nag yooyu dama koy codé li ma bëgg a wax rek mooy dóor yi mooy yàq ñaan yi gone kenn du ko gaaw a dóor fexe ba mu ñeme la te du la yem waaw bëgg la te du la ragal la su gone saa boo xam ne boo ko meree mu am problème dog nga yoonu yar dog nga yoonu yar gone lu lañ koy def walla nga tere ko añ doo añ la doo reer wala toogal fii ma na su ma ko defee sama doom léeg-léeg dama fay romb pour mu ne ma papa baal ma <laughs> ma yàlla mu yàlla yërëm maa koy pini kat waaye bëgguma ko faa jële parce kon punition bi day yàqu mais bëgg naa ko faa jëlee moo tax damay romb rek ba mu ne papa ba <laughs> wala papa dooma baal bu ko def ma am occasion mu baal ko kenn mëtu ko gis rek yàlla na ma yàlla yërëm <laughs> ah yar lu la moom su ko defee nga teeylu doo dóor doo xas su bëggee lu mënta nekk nga ne un un su bëggee lu mën a nekk nga defal ko su bëggee lu mënta nekk su tollee ci na la sori nag fer na am juróomi ak jàpp juróom-ñaar léegi nag fa yar nekk mooy na la sori nag bu lay sori it jox ko ku wóolu jikkoom teg ko caw waaye bul jël rek ecole sàngam moo xew fa laa ko yóbbu yaa ngi def muy si bëkkat école bii xumb na falaa ko yóbbu yaa ngi def musiba kat da nga koy tànnal ki nga koy yóbbu ndax yaral ma te buum la niru hmm. mënul nekk yaral ma ko te la niru moom kay yaral ma ko li nga ciy tekk mooy te mu niru la waaye buum la niru moo tax ecole yeeg jardin yi ñoom seen yooyu boo yóbbu sa doom dangay tànn. tànn jàngalekat bi tànn école bi waaye tànnaale groupe bi ne ci école bi ñii ñan lañ école bi ñan lay génne c'est très important hmm? école bi ñan lay génne ñooñam école bi génne boo bëggee sa doom mel noonu dugal ko fa bu génn noonu lay mel yàlla xam na ko waaye su fekkee école bee xew mën ngaa fay xaalis bu baree bare bare lu nga mën ko caa def mais sa doom dut la niru léegi ñeneen lay niru te ñooña may niru nag mu niru la moo ko gën waaw booy tarbiya doom it doo wax ne bàyyil nangam dëgër nga bopp déedéet da wax nangam de su ko def walla lii baaxut nangam de su ko def wala lii baaxut bu xale bi tolloo itam ci dana poser question na nga am na nga am art d'écoute Mor da ngay am art d'écoute luy art d'écoute mooy question bu la xale bi posé rek fexeel wut réponse mas naa am kenn ci sama doom yi dañoo toog seetaante la muy laaj ba yaay ne ko doy na mu jóge fa ñëw ci man di laaj may ton di laaj may ton bañ àgg ci waaw papa jeune bi dana dee ci film bi ma ne ko déedéet bu dee ci film bi film bi day yàqu mu ne ma kon yàlla moo tax du dee tu mu mun ma kon looloo tax yàlla du dee pour moom jàpp na ne adduna kon mooy film bi yàlla mooy sun jeune bi <laughs> ma am problème bu toll ni ñay waaw xoolal fi mu jëlee laaj bi papa jeune bi dana dee ci film bi ma ne ko noonu jeune bi du dee ci film kon film bi day yàqu mu ne ma kon moo tax yàlla du dee ma ne oh. aw <laughs> waaye réponse yooyu moo ko jural tadarruj boobu bil afkaar yatadarraju bil afkaar min fikratin ila fikra wa tafakkur fi saa xayrun min ibadati sana ah waaw yonent bi nee na xalaat une heure de temps moo gën jaamu yàlla at mu amul xalaat te loolu mooy ubbil gaa yi xalaat waaw kon ñu yar ko bul dóor bul saaga bul xas dee ko woon ak mat mu lay xool ba niru la waaw mu lay xool ba niru la juróom-benneel bi ci bi ngay yar ci àq yi nga ameel xale mooy di ko orienté orienté mooy lan mooy boo toogoon tey sa doom jël càmmoñ bi di ko lekke dangaa dof yow déedéet da nga naan ko loxo bii lañ ko lekke bii la ñuy lekke rek mu dal di xam ne papaam nee na ko walla yaayam loxo bii duñ ko lekke gis nga bu gisee koy def dama sama jën doom daa ñëw di jooy diw dafa saaga tëll tëll lu mu wax mu ne nee na nee na diw dangaa ñaaw loolooy saaga bi waaw parce que soo mës a dégg ku saaga ci gémmiñam boo déggee saaga daf lay jaaxal kon xale bi da nga koy orienté euh, ndeysaan yàlla yàlla yërëm mbay Mbaye sama papa suñ masaan takk lam nii lam xam nga lu mu la koy tere jàpp la rek la lay wax jàpp la bu set nag bu ñuy añ bu gisee ne la jàpp la gis nga jàpp la jàpp la li mooy mu jàgg dafa danga ci doyul sëkk nga teg ko wàcc mu jaxta kenn la ma sa dóor ci doomam yi waaw kenn la ma sa dóor ci doomam yi moo tax doomam yëpp moo ci gën a moo ci gën a tëx bëgguma wax turam ndax kon doomam yee dañu may mere ñu koy wax papa waaye ku ñoom sama papa mosu la dóor xaw ma nag yaaw na ñoom de waaye daal mosu noo dóor moom ah moom roy naa ko ci man sama jenn doom laa mës a sama ñaar doom laa mës a dóor waaw ah, képp kon lan laa bëgg wax bàyyi leen dóor yarkat yëpp nañu bàyyi dóor waaye nañuy orienté nangam de su ko def xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yebal waaja ne ko demal ci ma xam nga jëli impôt ya ah, ak asaka ya mu dem ñu jox ko impôt ya azaka yi lépp nekk six million gaa yi may ko deux cent mille mu def ko ci poosam jaar këram bàyyi ko fa dooru ñëw indi six millions yi nabba'ani al-alimul xabiir waaw nabba'ani al-alimul xabiir sunu yónni bi nga xam ne yàllaa koy wax nangam xew na ne ko gis nga waa ji nga yónni woon am na lu mu yóbbu këram yónni bi ne Bilaal noddal Bilaal nodd bi muy laata daana jàkk ci fees den yónni mënoon na waa ji waaye ana la nga yóbbu sa kër déedéet daf ne alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulihi mbokk yi lu tax ku kuñ yónni nga jëli la nga yónni ñu may la fa dara nga moomale ko sa bopp lu tax ni di def loolu tuddul kenn ah. waa ji ne nii ne ko ah man de bi ñu ma ko defee dañ ma faa may deux cent mille ca gaayaa ma ko may yonent bi ne ko fa nga demoon yaa fa demaloon sa bopp mu ne ko déedéet sa bàyyi la yónni woon mu ne ko déedéet mu ne ku la yónni woon mu ne ko yow mii yaa ma yónni woon mu ne ko man mi la yónni woon nag ak tur ñi ma la yónni loola ñu la fa may ak lañ la fa jox lépp nun ñëpp a ko bokk indi ko fi ñu séddoo ko mu ne ko boo ñëwoon mbuuru xam koo fi yónni poto meew bu jar trois cent mu dem jox ko deux cent cinquante du indi cinquante de tàngal la koy jëndee ñëw ne cel hmm? kon dangay ngay orienté rek ba mu ñeme euh, Cheikh Muxtada ñu bëri xam nañ ko ci yéen radiyallaahu anhu daf daan def bu nit defee dara du wax lu tax nga def nangam day wax rek da ngay seet lii rek nangam ne su koy defee lu rek lay wax da ngay seet lii rek nangam ne su koy defee ku ñëw rek la ko dangay seet lii rek nangam nit koy defee ba yow nga am problème yow yow ñu ko def du lu tudd nag dangay seet lii rek dugg ci néeg jàmbur jël fa téeméer dërëm loolu nees koy defee dangay seet lii rek necce necce ba nga xam ne yow kii yow lay wax waaye du lu tudd nag yaay mujj bàyyi ko rek loolu ci ci stratégie yar la bokk beneen bi mooy boo yar bu dee góor na teel a takk jabar bu dee jigéen na teela a boo amee doom ju góor bu amee ñaar fukki at ak juróom takkal ko jabar boo amee doom ji jigéen bu amee juróom-ñeenti at may ko jëkkër juróom-ñeenti at neuf may ko jëkkër mariage précoce précoce sax Hmm? pourquoi dix-neuf ans ëpp na ay eh. neuf ans laa wax neuf waxuma dix-neuf neuf laa wax un deux trois quatre cinq six sept huit neuf neuf laa wax boo laajee kati jaxate ñoom ñee walla nguur gépp ma waxati ko pël buy fay amut pël buy fay mere ca néeg jëkkër ja dem kër yaayam pël du ko def xam nga lu tax du ko def pël buñ koy may de fekk amagul neuf ans Fatima toog ko so toog ko seen la ñuy ci neuf balaa am neuf ans gone gi ñu mayee te amagul juróom-ñeenti at wala ñu maye ko ci juróom-ñeenti at kiñ ko yët am na jabar yaayam am na goro ñu defal ko benn nag benn benn stage stage su sëy neuf dix moo xam ba baa mu mën a duyug satala dem yóbbu néeg sàmba dada la waaw ba baa mu mën a duy satala ñu ne ko duy satala gi yëpp néeg sàmba dada mu mu duy sa rek yóbbu néegi sàmb dalal sàmb dalal xam ne tey mën na ko joxuk ay diggante bi nag jàng na fi nu ñu ratte soow nu ñu ratte bu deew bay nu ñu koy ratte bu deew nag nu ñu koy def nan la ñuy waaye lem soow nu ñuy defaree kaggu lu ñuy def soow bi ci kaw waaw nan lañ koy defe yu yëpp da ko fi man te loolu mooy mission li mooy ay tâche tagal tagal mu ngoog merci beaucoup eh, bi ci mujj balaa ñuy julli ji mooy ameel nga ko àq ci alal ji nga am boo faatoo mu ameel la àq ci alal ji nga am boo faatoo loolu nag ab bunt la bopp xëy na mooy ñetteelu bunt bi ameel nga àq sa doom bi boo faatoo cir bu mu war a am ci alal ji yow mii doom sa papa am na àq ci alal ji boo faat yaay noonu doom noonu loolu bunt la bopp incha allah ci lañ ci la ci mooy suñu nekk troisième bunt waaye maa ngi ci àq yi bàyyi amel doom léegi nag ma teg sama baaram foofu junju naa bii maa ngi ñëw ci àq yi nga xam ne moom la doom yi ameel bàyyi sax njugo ak yi nga xam ne moom la doom yi ameel bàyyi bàyyi nag bi muy ameel àq doom doom juddoogut doom bi muy ameel àq bàyyi daa fekk nag mu majeur mu mat góor walla jigéen xam li xew koo koy xam ne amel na baayam àq yi amel na yaayam àq yi ba jiitu yëg ca yooya mooy al ihsaan wa xadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaa wa bil waalidayni ihsaan ihsaan nag li nit di defal baayam mbaa mu tudd ihsaan mooy loo xam ne bu ñu koy nettali non seulement doo bëgg noo seulement doo sëgg waaye doo bëgg mu gaaw a bàyyi loolooy isaan amul fu tàmbali amul fum mu diw ni mu baaxee tabaxal na papaam kër tabaxal na yaayam kër di lim yi nga baax le nga siggi nii di xool nit ñi yëgal ne la nga def mooy ihsaan waaye bu ñu ne woon ii diw de bett na ma commencé naan moom de waajur wa la génn kër ga nga commencé sëg loolu mooy dëddul ihsaan al mu olof moo ne mooy rafetal mooy def lu rafet papa ak yaay dañoo war a yëg lu rafet ci baay ci doom papa ak yaay ndax am na fu doom di toll bàyyi koy yor mu am fu bàyyi di toll dooma ko yor wa ahsin kama ahsan laahu ilayka waaway waaway waa ji daa nekk Dakar ndeysaan quartier sàngam bàyyi li wax rek il parle trop mu wut aw teg ko ca dem bay jub Thiès fa ñu tuddee alukaañ ca ginnaaw Dangote mu yóbbu fa bàyyi bàyyi ko fa ak cinq kilo mburu bàyyi na ko lu xew ni mu ne ko dama lay sànni ndax danga bëri wax sama jabar ju njëkk yaa ko tas deuxième bi yaa ko tas bëgg tas troisième bi duma la ci bàyyi toogal fii daal sëfër bi ñu dem sëfër war gaay bi bàyyi na ko diw mun naa mun na ko kaay ñu waxtaan mu ne mu ne ko yóbbu ma xombal yóbbu ma xombal mu ne ko lu tax ma la yóbbu xombal fii laa lay wàcc mu ne ko déedéet man sama baay Cees laa ko sànni kon soo ma sànnee allukaay ak góo sama baay ak ma bëgg nga sànni ma xombal man yow boo sa doom màggee sànni la baa mbay mu daal di àgg suuf ne ko bàyyi mu ne ko naam doom mu ne ko dangaa sànni woon sa bàyyi mu ne ko moo tax damay sànni nit ma bëgg bu sa doom màggee sànni la yow baama yi mu ne sofër bi delluwaal gën mu delluwaal ginnaaw mu ne ko jégal ñu ñibbi <laughs> ah way kamaatu diinu tuddaanu kon rafetal mbokk yi lu am solo seytaan nag bu sañoon ku tàmbali rafetal ci sa yaay mu la on oh, sa baay mu la on oh, déedéet rafetalal rek bu ñaareel ba ci ñaari waajur bul wax sa baay uf bul wax sa yaay uf fala taqul uf uf <laughs> léegi gis nga sama télé sama micro bii micro ñoom laay bi Ali bi dafa am off pour boo koy fay am on boo koy taal gis nga ku ku ne ku ne sa yaay off mooy fay nga ko kon nañ on suñu yaay yi te bañ leen off <laughs> te ku ne ñun fi ne sa yaay moo la branché moo la may moo la may réseau gis nga bi nit di nekk ci biiru yaay ça si day connecté avec fil avec câble bi nit di nekk ci biiru yaay connexion bi avec câble la mooy butitu njurukaay bi doom juddoo di nàmp mu nekk connexion avec petite distance parce que appareil bii di xale bi connexion bi mënu ko jël fu sori moo tax jigéen ñi ko xam duñ wut berceau berso daa teel soo so soo xale ba tëddee fële nga tëdd fii ah réseau bi day manqué connexion bi du jot parce que conne mbirum connexion mbirum milieu man léeg-léeg ma def téléphone allo mu ne ki ngay tollool ki ngay jokkool toll na fu ñu ko mënta jote du ngeen ko dégg de waaw ba tax xale bi nga xam ne day nàmp te féregut dañ war di jege papaam ak yaayam bokk benn lal xëy nag bu mu tëdd seen diggante mën naa tëdd fa la ci ginnaaw moo xam waaye daal bu mu leen sori léegi nag su juddoo nag xaw ma su màggee nag ba toll ci quinze cent vingt sore bi bu fekkee connexion bi jàppoon na bu soree tam day jàpp rek gis nga tey boo ñëwee kër Mor Fall mu dugalal la code ci sa téléphone bu déwee ne boo ñëwee dangay ngay taal rek code ba ñëwaat affaire bu gannaaw moo tax mbokk yi bu kenn wax sa yaay uuf bu kenn wax sa baay uuf ba ko alxuraan jàng nag yàgg na fala taqul lahumaa uuf baat bii moo tax alxuraan waxul bul dóor sa yaay bu dóor seen yaay baat bii moo tax ndax ki la wax bu wax sa yaay uf pes waxe noppi ah waaw parce que su boobaa mor bu alxuraan waxee kon wax yàqu la bu lax sa sa yaayu papa uf ba noppi naan bul dóor non alxuraan doo noonu Maodo Faye daf naa mos wax ne bàqara ba naasi amul fu yàllay waxe e, yalwaan leen amu fi ma ne ko waaw wax nga dëgg de parce que sunu borom ndax saraxale mu ne ko naan yalwaan leen <laughs> laaj ko kaan yi mu ne ma bàqara ba amul fu yàlla wax fenn yalwaan leen ma ne ko déedéet lu di wax nga dëgg moom waaye wax na saraxe leen léegi nag sunu borom moom du fi nekk naan saraxe leen ba noppi naan yalwaan leen ah protéger waa ma saay la farata na léegi nag boo ñëw ci alxuraan di wër nag yalwaan leen yalwaan non saraxe leen doy na te sunu borom may na kuy sarax ko ku la tane maye na kuy sarax koo tane moor kiy jox kiy sarax ku ko tane addee la joxe koo xam ne moo la yaa ko tane di ko jox sarax nga jox ci ñaar ñëpp lañu jox daa waxoon ne isaa naajaytum rasula fa qaddimu bay na yedda njookum sadaxa gis nga sadax la ko tuddi foofu te yuntu te du lekk sarax kon sarax foofu addee lay tekki réew mi nag jox ko la ëpp la yombu fi jox koo yaakaar ni moo la ëpp la yombu fi ndax seetaani moo la ki jeexalul dara ki jeexalul dara waaw bu dee nag ñiy fecc ka nag rawlee ka taasu mu ne joxeel bañ xam yaay kan sàll ba lay sa fala taquloo ma uf kenn wax si yaay uf uf te nag baat bee gën a yomb wax ci baat yi uf moo tax moo tax boo meree bul guux sax sa lex yi boo meree sa yaay wala sa papa bul guux sa lex yi de ndax booy bàyyi rek mu naan uf <laughs> mooy bàyyi rek mu naan uuf waaw ndeysaan sama yaay daf maa mos a bëgg a xas te te te mënumaa xas ndeysaan mu yóbbu ma ci magam ji jigéen ne ko na ma xas <laughs> waaw mag janaan ma ma ne ba mu yàgg ma dog tontu ma ne ko ah yow yaa remplacé maire bi eh, pour pour xas ma. naa mu ne ko su ma la tontu moom laa tontu bi mu ne ma jógal ñu ñibbi <laughs> kenn a nu mu lay def ma ne wax naa dëgg di ah waaw ginnaaw kii la délégué pour moom moom muy wax loolu li ngay ñaaw ak sa boobu bu rëy bi bëri nelaw bay bëgg a dee léegi su ma ko toog <laughs> ma a cal rek danga dul tontu mu ne ko déet yow dañ laa délégué pour nga <laughs> pour nga sama nelaw yu bëri naa ma ne wala su ma ma ne ko su la tontoo kon maire bi laa tontu Ibrahima ma jógal ñu ñibbi kenn xam lu mu lay def man a xanaa bàyyi nii rek ndeysaan yàlla ma yàlla yërëm ñetteel ba ci àq yi ndey ak ay waajur am ci doom mooy bu leen gëdd wala tanharhuma yaay lakkale nga waayew te gone yi léegi dinaan yaay yaay yaa fatte maa ko dégg yaay yaa fàtte xanaa léegi la la fàtt xanaa léegi la la fàtt hmm. ki naan wala tanharhuma day bëggul ko wax yaayam yaay yaa fàtte fatte wut de ku demee mu yaa fàtte waaye daa ñu ci suñ fàllu naan ko waxal ci sama yaay sama yaay nit ñi moo ci gën a bari wax mi ngi wax suba mi ngi wax ngoon di wax sëñ Fallou ne ci rek mu wax a wax ba jeexal na sëñ Fallou ne ko dana jooy guddee mu ne ko sa yaay dana jooy guddi waa ji ne yaa ci ñàkk mu ne ko ah déedéet boole ko jooy guddi de mu ne ko li nga fi wax lépp nag yaa ngi koy wax boole ci jooy guddi demal waa ji dellu suuru si bay bëgg a waaye sama yaay ji daa bëri wax. mu ne ko dana jooy guddee mu ne ko ah du jooy guddi nag demoom mu ne ko yow li mu yàq lépp daa nga ko yàq ba dafa dagaro police jooy guddi kon moo la tane ñeenteel ba ci àq yooyu mooy alqawlul karim kuy wax ak sa baay mbaa sa yaay dangay wax wax ji gën a tedd luy alqawlul karim mooy nga naan yaay yaay naan baay baay boo jëlee terme tubaab bi nag day woyof

baay walla yaay boo ko tubaab biisee day woyof waxtu jot na de jàkk ji daa sori waaw man damaa boole woon tisbaar ak takkusaan comme musaafir su jotee rek ñu nodd bàyyi ñu dem ñu dikk benn tomb moo nu dese balaa ñu ñëw ci question réponse yeeg kala yeeg yooyu incha allah noonu la acca ñu àgg àgg leen si jàkk ji kon ñoo leen di xaar ci kanam incha allah yàlla yàlla defal suñuy mbir defal suñuy mbir ci def suñuy force dara yéen a ne koo bëgg bëgg na ndéll incha allah.